on fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam bokk ak xarit yi ñuy seetaan ci gfm point sn lëkkaloo ak youtube slash tfm dal leen jàmm ci seen émission gis ci sa seetu saa yu tasaaroo képp ku for gis boppam émission bi nag émission boo xam ne dikkaat nañ ci ak yéen waaye laata ñuy xuus ci li nga xam mooy jàkkason actualité bi leen indil bismillah ñu dem ci li nga xam mooy suñu rétroviseur Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ci wàllu politique 1960 la ñu am li nga xam mooy suñu indépendance le père de l' kenn dootul natable turam mi ngi tudd Léopold Sédar Senghor mu nekk une figure emblématique boo xam ni dirigé na Sénégal lu tolloog vingt ans ba 31 décembre 1980 mu jël la ngay jox ko ki nga xam mooy le président Abdou Diouf Senghor nag. ci lutte bi nga xam ni xeex na ko ci wàllu politique dualité amoon na digganteem ak ki nga xam moo ko dugal ci politique kooku moo di Lamine Gueye Lamine Gueye bokkoon ci SFIO ki nga xam moo di Senghor BDS lañ ko gënoon xamee ca départ ba ak ki nga xam moo di Mamadou Dia BDS boobu dem nañ ba mu nekk li nga xam moo di UPS UPS na boo leen ko déggee moom moo daal di jur li nga xam moo di parti socialiste parti socialiste bu doon gàll boo xam day daw ci kaw géej mun nañ wax ni gàll boo xam ni léegi léegi duus yi amoon na doole ba da xam dafa daal di weng ay crise yu bëri daf leen doon fekk si dualité bi amoon diggante Senghor ak ki nga xam moo di Lamine Gueye donte juboo nañ ginnaaw ba mu nekk président assemblée nationale ak maire de Dakar juddu na diggante Léopold Sédar Senghor ak ki nga xam mooy nekkoon numéro 2 am di Mamadou Dia Mamadou Dia président du conseil Sénégal euh, Sénégal ki nga xam moo di Senghor amoon titre honorifique ñoom ñaar ñoo doon dirigé 1962 crise bu metti am na ci seen diggante ñoom ñaar ba nga xamante ni la ca xew yépp doy na waar ba fi mu mujj mooy ki nga xam moo di Mamadou Dia dañ ko daal di emprisonné ak ñi nga xam ñoo di ñoom Waljojo Ndiaye ak ñeneen ñoo xam ni dugal nañ leen ci prison bi ci crise boobu amoon. parti socialiste di wéy kii di président Senghor 1963 la def référendum bu njëkk ci réew mi référendum boobu bi mu ko defee nag dafa am tous les pouvoirs pouvoir yoo xam ne dafa dajale ndomba tànk yëpp téye ko ci loxoom di buum di bumi di distribuer ay privilèges. loolu moo indi article 35 bi mu dugal ci constitution bi ba 1980 ba muy dem mu jël réew mi jox ko ko xam ne amuloon woon base politique muy le président Abdou Diouf mais article bi ci constitution moo fal ki nga xam moo di Abdou Diouf. parti socialiste di dem di rëng-rëngi ci reñu kii nga xam mooy le président Abdou Diouf coow yu mel noonu amaat na parce que kii de président Abdou Diouf dafa dikk indi aussi ay nitam li naan les hommes du président ñi ci gënoon a fës kenn kii moo di Jean Collin ñi nga xam ne ci vie politique bi lu ci bëri ci loxoom la nekkoon keneen kii nekkoon tout tànk ci kanam ki nga xam moo di Senghor parce que il était au ministère des affaires étrangères kooku mooy Ousmane Tanor Dieng mu récupéré ko indi ko indi ko ci pale bi ñuy fàttaliku ci élection yi amoon ci 1993 ci lañ ko nommé ministre d'État chargé des affaires présidentielles muy buum di buum mi ci li nga xam moo di parti socialiste ñu takkal ko ndomba tànk boo xam ne c'était le premier secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng ndomba tànk yi nga xam ni Abdou Diouf joxoon na ko indi woon na peut-être ay crise ak ay frustration ci parti socialiste kii nga xam mu di Djibo Leyti Ka defee li nga xam mooy le congrès de 1996 le congrès sans débat ñu tabb Ousmane Tanor Dieng premier secrétaire du parti loolu indi na mu créé courant bu bees le renouveau démocratique ba génn li nga xam moo di parti socialiste élection législative 1998 mu amoon ci ay 11 députés hémorragie interne wala externe boobu ba mu amee kii nga xam moo di Moustapha Niass ci loolu la inspiré wu 1999 l'appel de juin bi mu defoon ci la génn parti socialiste ñaari génn yooyu indi na crise du parti socialiste yoo xam ni tax na bi ñu demee deuxième tour ci 2000 kii nga xam moo di maître Abdoulaye Wade yóbbu Abdou Diouf ci ballottage daal di koy gagné. y a un fekk fait qui s'est ki nga xamoo di mbay Jacques Diop ñëpp xam na ni ci Rufisque moo doon militer parti socialist moom dafa yàgg ci politique depuis 1959 euh, laata ñuy am indépendance euh, ba ñuy dalal dugal ak yooyu moom dafa ni woon day élire ki nga xamoo di Abdou Diouf au premier tour mais ci diggante ñaari tour yi génn na parti socialiste. ànd ak ki nga xam moo di Abdoulaye Wade daal di koy fal mu nekkoon crise yoo xam ne dafa miin woon parti socialiste donte Djibo Leyti Ka dafa waxoon ñu votel ki nga xam moo di Abdou Diouf waaye loolu mujjun antu Abdoulaye Wade moo mujjee remporter élection yi parti soliste wéy ci loolu mu mel ni que seen électorat bi leen Ousmane Tanor Dieng jiite moom mi nga xam ne moo hérité parti bi ci ki nga xam moo di Abdou Diouf dafa indi beneen hémorragie boo xam ne électorat bi day wàcc di wàcc ba 13 pour cent ci élection yi nga xam ni ñoo mujjee loolu nekk na loo xam ne ci dëgg-dëgg ah tey na xel crise boobu jur na yeneen crise indi yeneen crise ba fi nga xam moo di parti socialiste ki nga xam moo di Malick Noël Seck xëy na moom moo ñeme wax lu kenn ñemewul woon wax que ki nga xam moo di Tanor dafa war a bàyyi dafa war a dem loolu la mu ko jural mooy doon ko exclure ci li nga xam di parti socialiste crise ba yemul foofu parce que gis nañ am na ay voix discordantes élection yi amoon ci wàllu municipal yi gis ngeen ni kii di xalifa Sall moom tamit ñu hérité ko ci Abdou Diouf hérité ko ci nekkoon jeune cadre moom dem na ba dëggal boppam bi mu nekkee maire de Dakar ci élection yi amoon ci 2009 mu ñëw nag individualité ci biir parti socialiste boo xam ni taxawu ndakaaru la ñëwee ca loolu dafa mel ni digganteem ak Ousmane Tanor Dieng neexatul ni mu neexee woon. kii de ay Tall Sall gis ngeen ni mooy maire Podor àndul woon ak ki nga xam moo di Tanor ca falu na moom tamit jamono yi am na beneen discours bi muy tenir ci référendum boo xam bokkul ak discours parti socialiste luñ ci gis keroog samedi. ba ñu demee fi nga xam moo di parti socialiste am na xeex bu métti bu fa am les partisans de Tanor contre ñi nga xam ni dañ ànd ak Khalifa Sall lañ wax wala Bamba Fall ñooñu ñuy dissidents yi wala dañu frustré wu wala dañu gis ay malaise wala dañ ni kii nga xam moo di Tanor dafa jël parti bi jébbal ko Macky Sall daal di ko koy jox takkal ay loxoom rek jox ko ko ñoom nee na loolu duñ ko nangu xeex bu fa am métti na ñu bëri woo nañ leen fi nga xam moo di nga xam moo di yi nii mu demee kii di Ousmane Tanor Dieng lan mooy nekk ëllëgam ci parti socialiste bi nga xam ne moo ko boo téye ko ci ay mbaggam moo dungoom li nga xam moo di parti bi mais Khalifa ñu bëri ko gis comme koo xam ne il est présidentiable bu référendum bi jàllee mooy gagné wala non mooy gagné xalifa Sall mooy am dëgg ci Tanor wala Tanor mooy am dëgg ci xalifa Sall wala mati Sall nee nañ képp ku mu woo ci sawet tas na li nga xam mooy sa parti tas na AFP gàkku dem na tas na PS ki nga xam moo di Khalifa Sall benn tànkam xëy na mi ngi ci biti loolu nekk na coow boo xam ni analyser ci politique bi leen bàyyi ngeen gën a jàngat loolu pour xam lan mooy nekk ëllëgu parti socialiste ci nga xam ni depuis Senghor 1960 wala lu jiitu loolu sax 1951 ba léegi am na ay mouvement yu bëri yu jaar ci biir ay situation controversée yoo xam ni loolu mi ngi leen di topp ba léegi ci nga xam moo di 2016 euh, xalifa Sall Ousmane Tanor ay Aïssata Tall Sall lan mooy ëllëgu parti socialiste bi nga xam ni moo nekk parti bi gën a ancré wu ci Sénégal bu gën a structuré bu gën a yàgg parce que yor na pouvoir bi lu tolloo 40 ans lan mooy seen ëllëg ci langue politique bi ci biir Sénégal loolu dañ leen di bàyyi yéen ngeen jàngat ko loolu lañ leen indiloon tey ci gis ci sa bopp mu nekk émission boo xam ni dañ leen di wax teg leen foofu seen baaraam ah ngeen daal di rëdd foofu di leen wax ni maa ngi àndoon ak Djiby Cissé ci wàllu xarala bi ci wàllu montage bi may nuyu waa Daaray Pakatas di nuyu waa GFM ki nga xam moo di Tafa Diong suma xarit ak euh, Bachir Diop di nuyu Maysa Faye di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ca dëgg-dëgg ñu ngi nii seetaan leen wax ni dem di kat mës ta yàq ngoro kon nag ba subaam jàmm wasalaam